sunu papa ji nga xam ne. moo fi toog fas yéene jàkkaarloog ñun ci wàllum émission bi. très bien déjà tamit ñiy seetaan ñëpp. ñu ngi fi soxla lool ki nga xam ne mooy Babacar du ñàkk dina dikkaat Seydi Bapoulo dañu lay wax bisimilah. aouzu ah, a min asheytaan arrajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammad wa ala wa sahbihi wa sallama taslima Euh, Eva ñu ngi lay ziara di ziar sunu xarit sunu collègue xaaji Ndoye Bane. jërëjëf El di ko jaale waaye juróom bi génn àdduna yal na ko yàlla xare aljanna. amiin yal ko yalla taxaw fu mu jëm yal na ko gënal fi mu jógee. amiin di leen ziara di leen wax ne ñu ngi leen di ndokkeel. te di suivre émission bi saa su ne ndax am na solo di yéen ngi yee askan wi di leen gindi. yéen a ngi fajit askan wi sax du ngeen ko yëg bari aana lu nit ki di wax fekk na yaa ngi dimbali sa morom mu toog sa ginnaaw te yëgoo ko kon ñu ngi leen di ziyaara di leen nemmeeku di leen wax ne incha allah yal na yàlla dëgëral seen i taxawaay amin amin amin kon bokk ñi nga xam ne seen gént dafa dem ba sax ay feebar dañ ko ca am mën nañu woote ca kanam 88 628 22 22 88 628 04 05 Ndoye Bane démb sa plateau bi xumboon na lool lool lool. Mhm. sëñ Modou Gueye ñu ngi koy nuyu moom itam. <laughs> sëñ Modou Gueye waaw ñu ngi koy ziar sama xarit boobu nit ñi dañu dañu comprendre que di tamit su liggéey jotee liggéey la. après émission bi xaritoo gi daal di daal di mhm. parce que askan wi la ñuy waxal te dañ leen a war a wax dëgg. ba keroog ku caméra yi di fay su caméra yi fayee nag après loolu ni seq ngeen seq ko mais liggéey liggéey la a très bien mhm. kon book euh, bu ko defee oustaz ñu ne la bisimila mhm. ndax gént dana dem ba ñu war a faj nit ki mu dëkkee gént yenn yi mhm. am na ñoo xam ne dañuy wax faru rab la ñu amee mais am na ñoo xam ne seen gént dafa mel ni paj mën na caa topp waaw Eva xam nga gént moom ak dundug doomu aadama ñoo ànd nit buy dund day gént. est-ce que. donte sax li ngay gént jàppoo ko walla maîtriser woo ko wala xamoo ko waaye gént moom ala kulli xaalin dafa bokk ci nit des na nag léegi gént yi nga xam ne su ko nit géntee mën na ko indil jafe-jafe ak yi nga xam ni su ko géntee mën na ko indil jàmm ah waaw yooyu dafa jar a xam. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw du gént gu nekk ma bon. Mm-hmm. waaye du gént gu nekk moo baax. est loolu dafa jar a xam. soo demee ci tubaab yi am na ci yenn saa boo leen waxee yenn gént yi ci misaal ma jox la ci benn koo xam ne ki dalay wax ni man lu ma gént gis ko. lu ma gént tey balaa suba wala ginnaaw suba ma dund ko. soo demee ci tubaab bi dañ lay wax ne il a un sixième sens très développé. il un sixième sens. très, très ah. pour chez les tubaab. waaw mais c'est pas valable au niveau de la connaissance euh, mystique parce que dañ lay wax ni. waaw euh, loolu biddéew nit ñi seeni biddéew du benn. waaw ku nekk ak fi la yàlla sédde ci wàllu biddéew euh, ci wàllu xam-xamu baatin comme ni ñu koy waxee. Mm-hmm. dafa am yoo xam ne boo ko maîtriser wul amaana pour nga dugg ci day xaw a jafe. Mhm. deuxièmement mooy euh, xam nga il une différence entre. nit ki nga xam ne kii da wax ne man damaa naqari deret lool. waaw benn. naqari deret xam ne dañuy naqari deret tàng soo loo leen lu mu tuuti ñu gis seen bopp. waaw waaw mu am ñoo xam ne ñi dañoo sedd lool boo leen doon wax lu nekk it. fi ñu toog duñ fa jege waaw quelle est la différence entre nit ki nga xam ne kii dafa gaaw a gis boppam dafa gaaw a tàng dafa gaaw a yëg boppam. ak ki nga xam ne kii dafa sedd kuy voilà bon yooyu différence yooyu mooy indi parfois bu dee même bu dee ci wàllu paj day am différence parce que am na garab goo jox ndoy baan mu naan ko du ko arrangé nga jox ma ko ma naan ko mu arrangé ma. waaw loolu dafay wane ni nit le tempérament nit bokkul. dëgg la. jëmm nit bokkul. constitution bi yàlla def ci nit it bokkul ça c'est un autre domaine boo xam ne bi mhm. un domaine un domaine très très sensible et très développé. dëgg bon ba tax na ñun souvent dañuy dañuy wax ni. Mhm. rêve c'est un monde difficile à gérer. bari aana ku lay gis dara yaakaar ni lu garaaw la. waaw lu rëy lu bon. Uh-huh. loo xam ne da ngay naan ci man de sama gétt gi xam naa ni moom buy bor set may am musiba wala may jànkonteeg musiba wala may taseeg musiba. Uh-huh. fekk na c'est diamétralement opposé. Uh-huh. je vous un exemple. allez euh, xam nga dafa am benn waay. bu ma mos a téléphoné entre euh, quatre heures du matin cinq heures. waaw. ma jël ko. waaw. déglul de. Mhm. mu ne ma sëñ ba ma ne ko mu ne ma nag ma baal parce que heure bi waruma la ci woo. ci yoon waaw. ma amul problème mu ne ma dama gént gént goo xam ne gii su ma la ko waxul heure bi su ma xëyee du ma liggéeyi. Eh, ma ne ko loo gént mu ne ma dama gént accidenté. Mhm. ba sama oto ma xoñoo ba oto bi yàqu ba fi ci biir oto bi. waaw fi ma nekk pour ñu génne ma fa sax problème la. ma bëgg nag nga dimbali ma wax ma génte googu comme que damaa yor oto da damay dawal. waa kooku Njaay la sant nañ ko suturaal rek. <laughs> mu ne comme que yor damaa yor oto te damay dawal. sama xel dalul te maa ngi nii damay xëy liggéeyi. Mm-hmm. ma bëggoon nga dimbali ma wax ma qu'est-ce qui se passe ma ne ko sa oto nga dem liggéey waaw mu ne ma ah ma ne ko waaw ma ne ko li ngay xaar ak li am sa diamétralement opposé. est ma ne ko gént gi. Hmm? li muy tekki mooy dangay am problème ñàkk a déggoo yow yaak sa borom kër. waaw xam nga lu ma wax. mu ne fi may waxee yoon sama jabar dafa mi ngi kër yaayam jëlee ko. est-ce que. waaye hmm. sa que ça léegi nag. waaw boo tasawoon ak koo xam ne kii peut-être maîtriser wul yooyu. Hmm. dafa lay wax ni comme ni Ndoye Bane di wax rek. boo génnee da ngay accidenté oto bi da lay rey dañ lay faagaagal dañ lay def nii dañ lay def naan wecceel oto bi waaw waaw bu laal oto bi def ko nii def ko nii comme ni ndoy di wax rek mhm. Mhm. fekk na demawul noonu mhm. d'accord bon genre yu mel dafay am ci ci ci ci gént kanta nag euh, comme ni ngeen di wax nii médecine traditionnelle ak médecine euh, kii moderne ñaari mbir lay xam ni benn bu ci nekk baax na dëgg benn bu ci ne baax benn bu ci nekk baax na li fi nekk xam nga mooy lan. mooy lan mooy nga xam ki ngay jox garab luy feebaram. te muy dëgg. boobu mooy bu njëkk bi. Mhm. deuxièmement bi nga maîtriser donné garab gi. c'est-à-dire substance bi garab gi am. waaw lu mu mën a jëfe lu mu mën a lor. ban efficacité la am. ban dosage la am. parce que yenn saa yi nga jox garab nit te xam loo dosage bi fu mu toll mu lor ko. day am. même c'est les médecins da ngay dem ñu ne la garab gii bu ko jël tant na par n'as l'aval de ton médecin. c'est vrai. parce que le médicament n'est pas un médicament bu ñuy fekk ni rek nga yëkkati rek. ñu ne la lii uniquement sur ordonnance. dañu koy donc yooyu dañ koy ñoom dañ koy def uniquement pour wan nit ki ne ko tout est réglementé. Mm sur le plan médecine c'est réglementé. mais sur la ci beneen côté bi nit médecine traditionnelle dañ dañ koy réglementé. dëgg du garab koo jot rek naan. très bien. mooy euh, jamono dafa wute. Mhm. les temps ne sont pas les mêmes. Mhm. les époques ne sont gis nga Evatra. naam ma wax la benn mbir. bisimilah gis nga jamono bu njëkk ba. waaw. li kii doon wax keroog. jamono bu njëkk ba danga nga daan bënn petit meew bu wex xat ak suukar xam nga lu mu daan jar ñetti dërëm. ci yàlla nga bënn ko xaar sa mburu sotti ko ci. waaw lekk ba sa biir fees te na law. waaw te dafa wex xat xat xat. ak suukar léegi lu xew ci jamono ji boo ko defoon léegi léegi li ñu yóbbu la hôpital ne la waaw excès de sucre wala nu ñu ko tuddee léegi lan moo xew ci loolu lan la. bon li xew mooy euh, Eva. Mhm. xam nga euh, ñun les réglementations nous a échappé c'est-à-dire euh, dafa am yu ñu échappé yu bari. Mhm. jamono bu njëkk ba. Mhm. tout est naturel. tout tout tout. dëgg la liñ daan dundee yëpp dafa naturel amul dara dara dara du am produit chimique du am rax du am dara dañ koy béyee naturellement góob ko naturellement mhm. dundee ko naturellement mhm. loolu mën nañ caa teg loxo waaw lépp lu fi ne woon mhm. baan lu naturel la léegi yëpp changé nañu jën yi da nga daan ñëw rek jële ko ca tefes ba ñëw euh, dugub bi da ngay gis léegi ñun suñu dugub sax boo mooy tuulee bu ñu ko defee sunguf ak yëpp sunguf bi ci boppam dañ koy dugal ci ci réfrigérateur actuellement lépp lépp a yàqu lépp yàqu euh, tradipraticiens yi ñaankat yeeg ñëpp bu njëkkoon soo demee ci suñu gox yee ba léegi sax bori prier ma nga fay am ba léegi dëgg la da ngay ñëw indi feebar bu garaaw wala problème bu garaaw a garaaw mm-hmm. nit ah. ñaanal la fajal la ko pare laaj la ci juróomi dërëm mm-hmm. dëgg la wala mu laaj la ci fukki dërëm mm-hmm. mais léegi ñaañu ñooñee ña nga fa nekkoon ña fa ba léegi. waaw mosu jóge dëkk ba. Mhm. mais dafa am ay ñeneen ñu ñëw biir ndakaaru biir réew tax. comme meew ma na mu safe woon suukar noonu nga ko daan lekk. Mhm. te du dara du la wàññi. léegi dañoo soppi meew mooma. def ci ay affaire maanaam lépp lu la même chose que ñooñe di nekkoon Dakar euh, nekkoon village yi ña fa ba léegi. te mhm. ñoom Ndoye Bane ñoom Babacar dañoo ñëw. luye seenum néeg. nekk fa ni ay tradipraticiens lañ. te jànguñu ko xamuñu dara. dëgg la léegi nag puisque moom domaine am bii nga xam ne foofu la ko Sénégalais yi gën a xamee muy di firi gént gi. Hmm. comme nit dina gént ba feebar. Hmm. wala nit ko feebar taw di gént. am ñoo xam ne dañuy listaxaar seen liggéey listaxaar la may laat lan mooy différence su listaxaar ak firi gént parce que tey soo demee ci médecin yi. Hmm. dañ lay bindal analyse ni la demal defi ko. nga dem ca kaw keneen mu defal la analyse bi. waaw bindal la ko ci kayit nga indi ko ci médecin bi médecin bi décortiquer analyse bi. donc est-ce que bo kii li saxaar mën na décortiquer gént est-ce que kii gént eh, kii firi gént mën na décortiquer li saxaar kenn kenn rek moo ci am kenn rek moo am priorité bi mooy ki mën a firi gént moo mën ñaari waaw moo moo moo am priorité normal xam nga lu tax uh-huh. dinaa la expliquer tuuti nit dina def li saxaar listixaar ça se fait pendant trois jours. kenn du def listixaar ci benn jour. Mhm. kenn du ko def ci benn jour. ci benn fan. duñ ko def ci benn fan. c'est pas normal. dina déedéet. Ndoye mii ne Eva la fanaanoowuñu kenn la wax dinaa la gani yi fanaanoowuñu kenn seen jabar yi ñu fanaanoo nga naan ma fanaanoo dinaa la loolu yëpp pourquoi ñu ngi lay déglu d'accord mm. xam nga première listixaar xaar la. saytu. boo demee examen. waaw c'est pas par par exemple jàll nga première épreuve rek c'est fini. dégg la am na deuxième épreuve. Mhm. troisième épreuve. dëgg la c'est des épreuves yoo xam ne c'est c'est pas pour rien du tout mais c'est pour examiner ta force physique et ta force mentale. Uh-huh. ba xam ndax ni ti mérites d'être un responsable. waaw ou bien tu mérites d'être un directeur général ou bien tu mérites d'être un un, un ministre. waaw waaw. d'accord waaw. su ma ndooy bànnee xoolal ma samay mbir. waaw. ma koy teg ci yoon su ma ko xoolee tey. Mhm. waruma ko wax dara c'est pas normal bindal nga teg. nga noté. waaw nga noté résultat bi nga jëkk am tey. le lendemain nga defaat li sa xaar notaat be notéwaat beneen le surlendemain nga defaat beneen li sa xaar noté maintenant tu fais la synthèse des sous xool ñetti listixaar yu est-ce que am na ressemblance est-ce que nuroo nañu est-ce que ni mu ñëwee benn la est-ce que ni mu ñëwee du benn ci ngay mën a def synthèse xool ce qui est valable et ce qui n'est pas valable. c'est ça donc mooy mooy c'est la voie normale reste maintenant nu ñuy defee listixaar je vais vous expliquer. waaw listixaar soo koy def. waaw man dama leen di wax naan toujours nañu bàyyi di taal lampe courant bu ñuy jëfandikoo tur yàlla c'est pas recommandé. booy jëfandikoo tur yàlla liggéey tur yàlla moo xam li saxaar nga def moo xam ismullahil azam ngay liggéey moo xam sirru ban sirru ngay liggéey minal asrar waruloo taal lampe courant c'est pas c'est normal parce que les êtres invisibles qui sont les rawxaan et les xuddaam ñemul lampe bëgguñu bëgguñu genre genre lumière yi baaxul baax na ci ñun pour éclaircir nos chambres et et tout et tout. mais baaxul ci chez les rawxaan et les xuddam bëgguñu ko ils vont pas t'assister. duñ ñëw loo leen di laaj duñ la ko jox. a à moins que nga génn ci ci ci ci cadre bi nga nekk dugg ci beneen cadre. Ah, d'accord. muy bu njëkk ba ça damay souvent dama koy wax dans mes émissions di leen wax ne éviter leen di éviter leen di taal lampe courant benn. beneen recommandation bi nanu éviter di def li si xaar di tëdd ci kaw lal. Ah, da ngay wàcc lal da ngay wàcc sa lal soo amee sa matelas bu ndaw sax lal ko ci suuf. li Pape Cheikh Diallo naan tayle tayle matelas bi wàcc nga taal sondeel soxna si dina ñëw parce que li wax ni yëpp àndut ak jaxasoo soxna <laughs> ah, waa li li mu wax nii. xanaa déggoo ma. <laughs> Ah, seen jabar yi fanaanoo ba may ma ma fanaanoo la. <laughs> non laajal seen jabar yi. ba ba allez waaw ayca c'est-à-dire deuxièmement. waaw néeg bi ngay defee istixaara. waaw jigéen waru fa xale waru fa yooyu gars yi nag fa ñuy defee li saxaar yi seen soxna yaa nga fa sër yaa nga fa arnes arsenal yooyu ñetteel ba déglu la de man mii lay déglu waaw li rab bi di bañ lépp ma nga fa <laughs> astafirullah lumineuse yi yeeg waaw baax na bàyyi baan jërëjëf ah, dégg nañ la maa ngi dem da ñëw beeg <laughs> tëjal gémmañ géeg yëpp ngi ci néeg waaw baax na baax na ñun dégg nañ la bu baax ah, te xam nañ ne di nga ci dolli waay defal kon listixaar dafa am ay charte boppam yoo xam ne noonu ngay defee dafa am ay charte c'est-à-dire euh, xam nga euh, Eva naam rabbu samaawaati wala du caaxaan du caaxaan du caaxaan kay du caaxaan on ne joue pas avec est-ce que ki am faru faru parce que ci paj ci pajtal la ñu nekk euh, médecine moderne médecine traditionnelle ci gëstu ñu gis ne kuy faj nga macha allah faru rab far bi nga xam ne euh, jinne dugg na la wala dara dugg na la yomb naa faj mu wér. waaw xam nga xam nga dañuy wax ne. waaw. yàlla ñu waxoon ci alquran. Hmm. ne ñu ma farrat naa fil kitaabi min shay mm. man yàlla bàyyiwuma dara ci alquranul karim mm-hmm. gis nga solution yi yëpp mi ngi ci alquran solution yi ñu wër yëpp buñ demee ci alquran dañ ko fa fekk dëgg la jinne d'abord <laughs> Eva mm. jinne war nga xam d'abord kan mooy jinne mm-hmm. ak bu lay jàpp lu tax mu jàpp la lu lay doyee loo ko yoreel loo ko ameel ba tax mu jàpp la. loo ko yoreel ak loo ko amal. ah waaw waaw. ndax jinne bi man. li ci yow jinne mën naa toog fee rek nga yoral ko daal. waaw c'est-à-dire jàpp na ko. yow li nga war a iti jëkk mooy su ñu nee ndoy baan jinne jàpp na ko. Mhm. waxal ndoy lan lan la def jinne ji ak lu mu joteeg jinne ji ak lu mu yoral jinne ji ak lan li jinne ji gis ci ndoy ba tax mu téye ko. waaw ak jinne ji ko téye mooy kan xam nga en toute sincérité waaw boo demee di wax di di di réglé une situation waaw war nga xam ñaar ñi ngay régler kenn ku ci nekk mooy kan quand tu règles une situation entre deux personnes war nga xam kii li xew wala xew ki ngay régler mooy kan soo waxee ak ndey baan ba pare ku bëgg a wax ak jinne ji mais euh, avant tout il est où il habite où comment il nu mu tudd fu mu dëkk fu mu jóge lu ko tax a jóg melokaanam naka la soo ko soxla foo koy fekk déjà dañu war a xam nit ñi dañu war a xam jinne d'abord mooy lan c'est vrai soo ko xamee ba pare nag ku ay jinne jàpp moom hôpital léegi nag léegi nag bu fekkente ne dafa dafa am accrochage ak nit. Ah. jinne du jàpp nit comme niñ koy waxee jàpp. cest à dañuy naan ñun jàpp lañ koy tuddee. da koo dugg mais cest à dafa ko dugg da ngeen am accrochage cest à xam nga mag ñu njëkk ña dañ daan tere dox dugg digg njooloor. Mhm. parce que jinne mooy mooy ay treize dafa am ñetti waxtu yu muy jóg. <coughs> Mhm. jinne dafa am ñetti waxtu yoo xam ne ci lay jóg. jinne bu dee dox. jël ay njabootam yor leen di leen yóbbu këram di mm. traversé mën na taseeg nit faagaagal la parce que yow il di moom jinne ji day wax naan kii c'est na aveugle jinne ji mooy wax loolu waaw mooy wax ne ñi kii aveugle la parce que gisuma xamul sax lu xew waaw su amee jikko bu bu xaw a kéemaane tuuti rek da lay faagaagal parce que da lay puus ne la puusal sama njaboot day jàll puus boobu moo lay puus nag. moo mooy bàyyi ci yow ay trace mm-hmm. est que. moo tax mag ñu njëkk ñi daan tere dox digg njolloor. Mm-hmm. beneen bi ci tegu mag ñi dañ daan tere dox timis mm-hmm. parce que jinne yi il se déplace à ces heures ak xaaju guddi. Ah. diggante une heure du matin deux heures. ñetti waxtu yi <coughs> la ñuy jóg. di déplacé wu di dem di ñëw jinne bokk na ci li mu gën a bañ a dégg mm. li mu gën a bañ te bëgg koo dégg mooy alxuraan moo tax ñuy wax naan booy booy déplacé wu di jóge béréb jëm bërëb guddi saxol di jàng ñaari saar yi boo ci man wasamsi wa duxaaxa wala wa wa samaa wa taarix. très bien da nga ciy delluwaat ndax. Euh, am na mbokki téléspectateur boo xam ne mi nga ñuy soog a jël. Mm-hmm, mm-hmm. nga ni boo dee déplacé wu. boo dee déplacé wu guddi. waaw soo dee dem. balaa ngaa génn sa kër. Mm. jàngal wa samsi wa duxaaxa mm-hmm. ba ba ngay àgg fi nga jëm. soo àggee bay dëppaat ci guddi gi te mënoo ñàkk bañ a dëppaat. Uh-huh. nga jàng wa samaa wa taarix ba ba ngay ñëw. loolu daf lay sauvegarder. Euh, sa dem ak sa dikk. doo am benn tolof tolof. doy ban mais mais mais euh, mhm. gis euh, nit koo xam ne xam nga Sénégal sama classe gi dañoo ñeme yàlla. ñeme yàlla mënul weesu nit du dund. Eva nga leb ko xaalis dem ñawlu. mu ñawal la yëre yu bari jox la. Mhm. nga leb ko ko. wala bon man bàyyil ma jël exemple feneen nga gis nit faatu. fekk yow yaral nga ko xaalis. biñ koy jullee fii nee nañ ko ko yoreel bor <coughs> nga ne miig noppi mu toog quelque temps nga tëdd di nelaw ngay dénk ngay ngay ngay gént nit kooku nga xam ne faatu na mhm. te da ko koo yoreel xaalis nga koy tëdd di ko gént mhm. loolu lan la beneen bi question bi pour ma bàyyi pour sooy wax ma ba ñu bañ laa dagg beneen bi mooy sa waajur góor faatu nga tëdd ci ay nelaw nga gént ko mu sonn lool wala mu bég lool wala mu mu mel ne ko mara yooyu noonu ñaari question la gars yi dañ koy dund fii de. lu baax sax. ah lu baax ayca bisimilah la ci wax benn bu ci nekk nu mu tëddee. waaw ayca yoreel bor bi. yoreel bor nit mu génn àdduna xam nga bor tuddul bor cicatrice la tudd. Hmm. parce xam nga cicatrice bi fan la nekk. Hmm. mi ngi nekk ci biir. ci biir subconscience su nit. cee. Mm-hmm. nit ki su ko deealee. Mm-hmm. ki ko yoreel bar ki ko yoreel bor dafay am communication toujours seen diggante ñoom ñaar. dëgg nga communication bi mooy lan mooy saa yoo tëddee rek yaa ngi naan a ah, man de diw de génn na àdduna waaye yoroon naa ko war su ko fayee yoral naa ko ko su ma ko fayul it yoral naa ko yoral naa ko loolu dafay dem ba nga xam ne bii sa diggante ak ki nga xam ne kii moom nga yoral borom ala kulli xaalin saa soo tëddee da nga koy gis. saa yoo ko gisee nag ñaari yoon ba ñetti yoon lu mu metti metti metti metti damal fay bor bi. lu mu metti metti na dem fay bor bi. même boo ko mënul fay demal ci ay mbokkam ay doomam ay njabootam nga génne bor bu joxe ko. Mhm. su dul pour mu wàcc la. nga am jàmm bon ki nga xam ne kii waajuram dafa génn àdduna mu di ko gis muy ree wala mu di ko dikkal wala muy def yenn euh, mbir yi sa diggante ak moom bari aana li ci ëpp ndooy mhm. bàyyi na fi moom waajur wi ci ginnaawam ay mbir yoo xam ne bëgg na nga taxawee ko nga soxew ko ah. nga sàggane ko waajur bu génn waaw bu génn àdduna nga ko nga dëkkee di ko gént waaw bàyyi na lu mu bi muy génn àdduna loo xam ne ni bëggoon na nga toppatool ko ko te toppatoo ko d'accord bëggoon na nga taxawee njaboot gi sang sàggane ko oh. bëggoon na ndénkaay yi mu fi bàyyi woon yëpp waaw ngeen sàmmal ko ko ngeen négligé ko loolu mooy indi waajur yenn saa yi nga gént ko mu ñëw ci kër gi waaw waaw ku lay wax naan sama papa gént naa ko démb wala kii naan sama waajur nangam géntu naa ñëw na fi démb wala wax naa ak moom wala feeñu na ma fekk na saa yoo ko gisee rek su ngeen gëstoo ci biir njaboot gi y'a un mal bu ñu war a réparer te négligé ko ah daf lay ñaax nag yow en tant que en tant que doom ne la maa ngi lay wan sama bopp pour nga jóg taxaw ci samay samay mbiru loolu dafa am solo nit ñi di ko xam rapportu doom ak baay dafa solide dafa dëgër dafa fort buum la boo xam ne ñii ñi dañu yaakaar ni dee ma koy tax mu dagg du dagg du dagg très bien mhm. jamais c'est vrai mais am na nit ñoo xam ni euh, dañuy gént mhm. lu ñu gént su asamaan sa teen ñu gis ko am na ñoo xam ne suñu tëddee suñu géntee bala ñoo wàcc yalaal bi fàtte ko mm-hmm. am na ñoo xam ne suñu géntee <laughs> suñ ko waxee mu yàqu mm-hmm. lan mooy seen différence nit ñooñu waa c'est-à-dire xam nga gént wax ko mu yàqu ça dépend des na lu nit di gént ah. wax ko mu yàqu saa yoo déggee nit wax la loolu rek c'est parce que le moment n'est pas propice moment bi mu war a fajoo ak moment bi mu koy xaare du benn mhm. maa ngi yaakaaroon ne suma ma géntee lii bu subaa dinaa ko war a dund wala dans trois jours war naa ko dund fekk ne c'est pas comme ça c'est-à-dire nit ñi ñooy seen bopp te rêve <clears throat> mbir la moo xam ne kenn du ko appal sa bopp yàlla moo koy trasel boppam deuxièmement aussi dafa am loo xam ne lu jar a bàyyi xel la ndooy mhm. euh, damay farataal di wax ni ñun du ñu créer rêve. ah waaw nit ne peut pas créer un rêve. mënoo ne damay dama lii lii laa bëgg a gént nga xëy gént loolu. déedéet deuxièmement boo xasee ba nelaw tu perds la moitié de tes capacités physiques et mentales ndaw la li ngay ñàkk ci sa ci sa capacité physique et mentale dafay bari. Mm-hmm. Mm-hmm. dëgg la sa bopp donc foofu lu la fa yàlla woon rek jàppal ne. boobu loolu am. parce que léegi nag nit mën na def listixaar. waaw am résultat te du xam lu muy tekki. te muy dëgg. parce que données yi le ko yàlla di joxe mu ngi la ko jox à travers les rêves te toi tu ne maîtrises pas les rêves tu as des problèmes parce que di nga problème bi nga am mooy su ma ndoy baan laajee sama gént gi. Uh-huh. wala sama listixaar bi résultat bi lan la. du ma la ko mën a expliquer parce que maîtriser wu ma données. danay gént mhm. kon donc ce qui veut dire que listixaar ak gént c'est diamétralement waaw eh très bien ñu bëree bëri gis nañ sunu doom yi ni ngi mhm. ni ni ni euh, pas firi gént ak ay ñoñam mhm. ma ne ne kii dafa am faru rab nañ ko faj ci tubaab bi itam dañuy dem joxe la fenn ñooñu jël la en charge di la jox ay doom Mm-hmm. parce que ne kii xel mi am na lu ci nekk. Mm-hmm. ngay gént du yuuxu di sursauter di def yenn yi ne sama faru rab bi tey da ngay dem seet ci benn euh, professeur bu nekk ci wàllu pàccu euh, kii moderne bi mu mm-hmm. jox la ay garab. waaw cest à war a xam ni faru rab. la majeure partie. fu muy gën a génne ci nit. mooy ci ñi nga xam ne ñii seeni maam seeni maamaati maam dañu amoon ay tuur. aaba ay xam genre yi mel noonu nga xam ne dañ ko amoon seeni cosaan la ci ñoom ñi koy topp di ko topp di ko topp juddoo seeni sëtaati sët seeni seeni eh, yooyu seen descendance mu nekk descendance boo xam ne bi dañ ko daan dund seen biir c'est vrai yooyu yi ci ëpp da ngay gis ko lay wax ni man farorab nag bu ñuy wax farorab mooy jinne joo xam ne ji du jinne sax jinne lañ ko mën a tuddee en définitive. mais mooy li nga xam ne daf lay topp. waaw te mënoo ko teg bët. très bien. misaal yi nag. waaw wax xam ne muy dëkkee. waaw. foro dina la dikke nga tëdd ba guddi. Uh-huh. gént di sëy ak góor. gént di sëy ak góor. benn. très bien. dina la dikkee nga gént di ànd ak góoru tubaab. Uh-huh. muy ñaar. am na ñoo xam ne ñi dañ lay wax ne man damay gént toujours sama soxna di ànd beneen góor. waaw am na ñoo xam ne dañ lay wax ne man damay gént sama borom kër di ànd ak beneen jigéen. très bien mais la am na benn femme. kon ñu jox kàddu gi ndoy bu may woo fan yii. moom nee na moom sa dafa am faru rab te faru rab bi man lay indi. bis chaque fajar man lay indi waaye mais loolu lan moo tax. te man femme bi xamuma. <laughs> man musuma gis. naa ca la may gis mais chaque jour mu ne ma sama faru rab baa ngi noonu. waaw même <laughs> lu moom am na lu gën a doy waar loolu. waaw ma lu gën a doy waar. waaw di nga gis jigéen di nga gis jigéen ña. def ba doo ree ah, la man li may wax nii du ma xoolal. <laughs> ay dina après naa la ko woo paas la ko. Eh. nee na moom faru rab bi chaque guddi man lay indi. mais am na lu gën a day waar loolu. waaw di nga gis ko jigéen joo xam ne yii dafa lay wax ne man saa yi mu tëddee guddi imam bi ci jàkk ji lay génn wala papaam sax. wala wala nijaayam wala ku mu bokk. ndey ndey ak baay dafay am. Mhm. c'est que dañuy souvent fusionné bi mi lay jël indi ko rek teg. Mhm. yow nag boo boo gàttee xel da naan. Euh, sunu ñëwee te Eva sunu jarbaat yeeg sunu doom yeeg ñenn ñi. Mhm. dañuy dem rek fu nekk la dem ñu leen di jox ay wérd wérd. Ah. am na ci boo yoo xam ne dañoo wérd bol. seen bopp yi départ mm, mm. ñu jël leen yóbbu leen hôpital di leen faj waaw jàllul waaw ñu koy jiin seen wujj yaay bi ci kër gi dañ koo liggéey it patati patata fekk seen doom yi am na fu ñuy dem ñu leen di jox ay yenn wérd yi ba ba ñuy départ mm-hmm. te loolu dafa bari carrément ci dëkk bi yaay yu bari ñu koy jooy mm. waaw mais loolu naka ngay xoole xam ni xoole nit ki rek xam ni kii nii dañ dafa laal wérd bu mu warta laal waaw cest à loolu euh, euh, li koy indi mooy dafa am xam ne tur yoo xam ne dama koy bëgg di ko bëgg di tudd ci. Ah, ci jotaay bi parce que c'est c'est c'est plus ou ah. mais dama la dafa am euh, tur yoo xam ne dafa bëri ay siin yu tooy. xam naa ne ndoy moom bu ma dina xam waaw yooyu te gudd lool. Mm-hmm. dama koy bañ tudd nit ñi xam nga. Mm-hmm. Ah, yooyu nag souvent ay talsam la wala mu nekk ay xuddaam wala rawxaan nga di ko wér di dem. moo te maîtriser woo données bi. Mm, ki la koy jox nag. ki la koy joxit maîtriser wu ko dafa am lu ñuy tuddee kamantara kamantara cest à ni ma ko waajig ni ma ko amee rek noonu la la ko joxe yow it nga ñu tase nga ne ma ah lii de dafa naa baax na. Ah. dégg ki ma ko jox nee na boo ko defee nii day def di nga jox ma ma nit ma liggéey tasewaat keneen. kooku ne ma ah, ne ma ko ah, am na tur ma joxoon kat bu ma la ko joxe xam nga joxalante bu bari boobu mooy indi nga tase koo xam ne ki yàkkamti na addunaam bëgg teel a lijjanti ko. waaw ñu ne ko lii boo ko wér daa turu jinne la ak yu mel noonu boo ko wér daa léegi yëf yi wuyu si la ngay wérdu ko. très bien départ. mun leen a faj médecine non c'est-à-dire ñooñu boo leen bëggee faj lenn rek mooy ci tane ci paj mi bu gën a gaaw bi mooy da ngay xam tur bi ñu doon wérd nga jël tur boobu ci nga leen koy faje très mais nag il faut nga enquête ko ba xam tur bi ban tur la. Mhm. bon bu dee asmaullahi alxusna asmaullahi alxusna mooy les quatre vingt dix noo dajee boo ci bëgg wér de la ci fekk waaye nag bul génn cadre boobu boo déggee génne cadre boobu dugg cadre yeneen tur yu xaw a doy waar yi may bañ a tudd alors la il faut nga am assistance assistance mooy nga am ku ci ëpp expérience mm-hmm. ku la ci ëpp xibra mu jàppale la ci xam nga fii nii. très bien doy ban ma wàllu faj mi toujours médecine moderne ak médecine traditionnelle. Mhm. toxum yàmbaa mi dafa bari ci dëkk bi. booy bari dof nañu dañoo tox yàmbaa bo dof. Mhm. beneen bi mooy soo xoolee Dakar wala Sénégal mi ngi génn mi ngi ni ñaa ngi tabax fu ne. Mhm. te àll bi yéen yéen wax ni àll bi fu ci nekk jinne yi dañ fa dëkk. gaa yi dañuy ñëw gor garab ga dëkk fa doo fa dëkkee jékki-jékki laal nga njabootu jinne ya sa ñoom ñu laal sa njaboot yenn saa yi ñu jiin ko su la su la jinne ji duggee yenn saa ñu jiin ko tuxum yàmbaam mi mhm. yenn saa yi ñu jiin ko jinne ji mhm. ñooñee ñu yóbbu la hôpital yóbbu la dalal xel yóbbula la fu ne jéem laa faj ba sonn mënoo ci dara mhm. mais léegi médecine traditionnelle ñoom fan lañ mën a jaar pour mën a faj loole tox kotu yàmbaa bu tox ba réer ndax mën ngeen ci dara beneen bi mooy ki mu dem fële wala Babacar mu dem ca jam ñaajo gor ak guy garab ya sam fab immeuble bala moo samp immeuble ba lan la fa war a def wala su fa samp immeuble yooyu pare tëdd bu guddi di gént ay jinneeg yu kenn xamul wala njabootam yi normal ñu commencé dof mu dem ci kenn ñu ni ko sa kër gi fii nga ko samp dafa am borom naka nga mën a def pour tuxal ñooñu ou bien yaay tuxu ba leen fa. oustaz. d'accord euh, Ndoye. waaw. dinaa la jox deux ñaari exemple nga bàyyi ko xel bu baax. Mhm. Euh, bu jëkk bi mooy kii tux yàmba hmm. ba xelam dem maîtriser tul dara hmm. kooku dañ koy séddoo ñaari nit ñi ñoo koy séddoo hmm. mooy eh, ki ki ki xam tur yàlla ak médecin bi ñoo koy seddoo ci tux yàmba waaw dinaa la wax koy seddoo je vais vous expliquer nañ koy séddoo mooy euh, médecin bi. waaw ko war a defal euh, euh, désintoxication xam nga ngeen koy waxee. Euh, waaw désinfecté xelam. waaw c'est-à-dire raxas. xelam dafa addict. voilà. mu bàyyi ci dañ koy yóbbu kooku ci addict. waaw waaw toxique beeg yooyu nekk ci yaramam. Mhm. ak chronique bi nekk ci yaramam. kooku dañ koy bàyyi liggéeyu médecin bi la. d'accord xam nga bu ñu bu ñu bu ñu bëggee régler situation bi ku nekk da nga li nga moom da nga ko koy jox. waaw dans la vie d'un être humain dafa am ñaari pàcc bii médecin tubaab bi moo ko moom bii wolof bee moom bii sëriñ bee ko moom te loolu yëpp mu ngi dund di nelaw ci biir nit il faut pas qu'on qu'on mélange les yow nag boo bëggee jël yi ci tubaab bi waaw féetale ko sa bopp waaw jël ya ca euh, médecine traditionnelle bi féete ko sa bopp jël la ci tur bi féetale ko sa bopp ça devient lourd dafay diis yow te mën naa indi réer. waaw mën na indi ay jafe-jafe mais bàyyil médecin bi. waaw mu jël ki nga xam ne kii dafa wéré di wéré di xel. dëgg la te tux yàmbaam moo ko yóbbu. am nañu ay garab yoo xam ne bu ñu la ko defalee ñoom dinañu wàññi toxique bi nekk. il faut que waaw. c'est raxas sa yaram ba mu set. gis nga bu bu setee. Mhm. médecin bi daf ko war a jël rek jébbal ko sëriñ bi. bu setee rek. waaw loolu bu deñee ci moom rek joxal sëriñ bi xam nga sëriñ bi lu muy def ci moom. sëriñ bi mooy defal waa ji ñaan goo xam ne gi xel mi da koy wëlbati ba nga xam ne dootul nekkati ci xalaatu def ko la prochaine fois. sëriñ bi loolu la mel sëriñ bi du ko mën. voilà le eh. travail de jaarul fekk ca médecin ba sëriñ bi du mën bi man bu ko bu ko même bu koy jéem it. dina quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi dina dina yàgg dina jël temps parce que toxique bi nekk ci moom xam nga toxique bi réellement mooy li nga xam ne nii comme naan naan café. mooy tax nga koy namm. quand l'heure est rek. nga ngay jëkkee naa jënd indil ma sama café c'est loolu il foog ñu raxas ko toxique boobu ci moom te loolu médecins yi ñoo koy dindi mhm. su ko médecins yi dindee ba pare nag ñu mhm. jox ko sëriñ bi sëriñ bi raxas xel mi ba nga xam ne bi dootul xalaatati di dellu ci loolu. am na am na doy baan doy baan am na keneen kuy laaj. Mhm. ndax euh, garab yi da ngeen ci def ay saar walla garab kese ngeen di joxe. garab waa ah non ñun nag daa dépassé garab <laughs> waaw ñun ñun à notre niveau. bien excuse-moi ñun ñun à xam nga tur yàlla ñun mënuñu ko booleek dara. dëgg la. xaqan tur yàlla moom rabbu samawaati wal ardi moom ay biram kenn du ko booleeg dara. moom rek te fas na bokkul ak kenn dara ndax mooy borom moom moom lépp. dañ ko koy delloo. waaw médecin bi bëgg léegi nag euh, ki nga fi nga ñëw léegi ci bunt boobu ci ki nekk ci àll bi. waaw. ñoo fekk àll nga toj ko sanc ko. waaw mais war nga boo sooraalee ni fi may sanc ni am na borom. Mhm. am na ñu fi nekkoon. Uh-huh. jinne yi ci àll bi lañuy ñuy dëkk. ñu ngi ci montagne yi ñu ngi ci dex yi ñu ngi ci côté bu nekk foo dem fekk leen fa. Mhm. léegi yow li ngay def mooy. Mhm. solution bi ma lay jox mooy avant tout. Uh-huh. demal nga wuti ñetti mbir. Uh-huh. kooku dama koy dimbalee ñi nga xam ne ñi ñu ngi ñuy déglu. Uh-huh. dafay am solo nit ñi xam ko. ndooy. Mm. yow suñu ndooy nga. ñun benn ndoy baan lañ fi am muy ndoy baan. yow suñu ndoy baan ci dara. lañ fi am muy suñu Eva Tra. amuñu fi ñaari Eva Tra. jërëjëf Ba donc ñu dimbalante. Mm-hmm. macha euh, gis nga boo demee ci cas yu mel noonu. soo bëggee dëkk rek da ngay wut ndoxu dex. ndoxu dex. neel benn. benn ndoxu teen. waaw. <laughs> ak ndoxu taw. ree nga de doy baan da nga xam li wax rek. <laughs> tey nag fee feebaru ma mi daf maa xaw a laal nga ñetti ma tooñ ko. dafa am solo. waaw ndox yooyu. soo ko jëlee. dama lay diggal bu nga bàyyi xel bu baax. demal ko mën a jàng. mu bindal la wa samsi ba saar bi jeex mhm. bu paree mhm. ci ginnaaw wa samsi bi mhm. mu bindaatal la wa wa taarix ba mu jeex nga sange ko say njaboot sa euh, ko ci kër gi di nga fa dëkk téeméer te jàmm rek ngay am dañuy daal di tuxu waaw te boo tëddee it di nga nelaw yaak sa njaboot. Mhm. ndoxu dex nag ak ndoxu. te li nga ni euh, médecin ko de. waaw non kooku beneen. waaw beneen affaire la. Mhm. moo tax ma ne la. Mhm. entre le médecin. et marabu marabout war nañu mën a lëkkaloo parce que dina am foo xam ne fii boo fa tolloo. médecin bi mën na dem. mais am na foo xam ne boo fa tolloo marabout bi mooy mën a dem. ñaar yëpp nit moom nit la yàlla bindee noonu. waaw lu ci nekk dafa am cër boo xam ne yàlla. mais nag seen liggéey bi dañoo dem ba xàmmeetuñ leen. très bien waaw ñun c'est-à-dire. Euh, xam ngeen di rax rax nañ leen. waaw xam ngeen ni dóorkat yi dañ cee bari. Mhm. yow xam xam nga loolu bu baax. Mhm. am na ci ñoo xam ne soo demee seen kër yi. fajar cinq heures du matin kër ga fees na dell mhm. moom ma nga ci biir néegam akub jeegam ñu koy tegal petit déjeuner au lit nañ ñi petit déjeuner au lit moom mi ci biir di def petit <laughs> déjeuner au lit lu mat mille personnes ñu ngi ci buntu këram fees fa dell am benn yambaram mu toog ci buntu kër gi di dagg ay ticket ticket mille francs ticket deux mille ticket cinq mille bala moo yeewu encaissé na au minimum encaissé na lu mat cinq millions bala moo yeewu mhm. mu yeewu nag jël fukki nit wala fukki fukki nit ak juróom taal otom dem yoonam ba nit ñi nit ñi nekk fa loolu lii may wax nii dafa bari torop ci dëkk bi te askan wi dañ koy dund te télé yi ñoo leen may doole boobu publicité leen ba ñii ar c'est de l'arnaque pure et dure ku leen jàpp-jàpp sàcc ku leen bàyyi bàyyi sàcc mais nag loolu nag ne loolu noonu lañ koy organiser ba xàmmeetuñu kii kii mm-hmm. très bien Oustaz mën nga ko mën nga jox naa la kàddu gi mën nga ko tontu. waaw. xay euh, ah, <laughs> amee. xam na li ma wax. <laughs> Oustaz ak yéen léegi. léegi xam nga euh, àdduna. waaw. ba àdduna léegi. ñii baax ñi ngi baax ñi yàlla di defar ñi ngi leen di defar nitu yàlla yi lu lu lu lu façon nit ku jubul di def ci àdduna rek nitu yàlla nga koy def ci àdduna ci lu baax te muy dëgg eh, loolu bu jële ko fi du yomb ku la wax ne rek mën na ko fi jëlee du yombul li tax yombul mooy eh, ñi leen di seeti dafa am benn problème bu ñu am. Uh-huh. problème bi ñu am mooy xoolal man sëriñ bi diw ñëw na fi mu ñaanal ko mu wér. c'est pas nag diw ñëw na fi mu ñaanal ko mu wér boo ñëwee bula la ñaanalee da ngay wér. waaw. mën na la ñaanal te du wér. te muy dëgg. keneen ñëw mu ñaanal ko du mu wér. Uh-huh. loolu nag mooy tax. nit ñi di waxante seen biir damal seeti ndooy parce que ndooy baan boo ko seetee man moo ma fajan. te doo publicité waaw moo faj sama doom wala moo ma defal ni waaw xam nga loolu yow waaw yow mi nga xam ni xamuloo te am soxla bula jaaxal bu la soxal fu ndooy baan nekk di nga ko fekk boo ko doon rang sax di nga ko rang ba gis ko. Mhm. gis nga dogguma la dafa am benn émission buñ ñu fi musoon a def ñu invité woon benn waay. Mhm. am ku woote. ni kuy faj koy affaire doom maanaam jigéen gu mënta am doom ba ma xamee turu paa xam tur xam dëkk ba am numéro téléphone ma joxe ko ci télé bi mais réccu naa ko benn paa séeréer la bu nekk fii ci dëkku séeréer mm-hmm. dama woo ni ma sama mu ni ma sama gañoog bàyyi tooñ nga ma waaw waaw waaw lii man dama baykat laa damay bay lii sama maama ko fi bàyyi ma koy def mhm. mais bu ma tudd ci télé bi bu ma nuyooti sama numéro bu ko joxeeti mhm. te mën nga ko teg nañ ci te daf ko mën te ay nit a dafay dem di am ko dañu ma mhm. bul joxeeti sama numéro téléphone bu fi yebaliti kenn ndaxte su man baykat laa su ma xëy su ma fekk lu mat lu mat cinquante mënuma leen a romb mënuma leen a jox luñ lekk te ku ma mësa laal yàlla def na ci barke voilà te moom ay fukki dërëm ak juróom ñett ak yooyu lay fayeeku xam nga xam tey jii loolu su ko Babacar mii nekk ci réseau bi mënoon day bàyyi régie mhm. dem HLM Grand Yoff mhm. luye fa kon de kon de tey mënul tey moom am na lu ko lu ko fii moom maa ngi koy wax ca kaw ah, Babacar xamul dara <laughs> mais mais uh-huh. loolu dafa di yéeme mhm. c'est seen métier mii wax dëgg yàlla dañoo dem ba xamatuñu kii kii su leen médecin yi yabee maanaam tradipraticiens yi wala yenn sëriñ si su leen médecin yi yabee ci ñoom la ou bien soo jëlee ñaar maanaam mën naa ne quinze yi baaxuñu cinq yi ñoo ci baax mm-hmm. mais nag loolu su demee ba dem noonu nit ñi bëgg nañ leen respecté nit ñi bëgg nañoo faju wér nit ñi dañoo ami problème te fa ñu amee yaakaar fa la ñuy dem te soo seetloo sénégalais ndeysaan su feebaree ak lu ko mënti dal ak lu mënti dal doom yi ca mm-hmm. mën ba lay njëkk a dem ca mm-hmm. tradipraticien ba lay njëkk a dem mu koy jox su ngof koy ren fu mu dégg kuy faj dafay dem la mu am lépp ci xaalis mu joxe ko fa mhm. su demee ba nga xam ne moom daj na mhm. ci lay doog a dem hôpital mhm. fekk booba feebar boobu sori na da ngay dégg ñu naan dem naa médecin bi seet nañu gisuñu dara waa hôpital seet nañu gisuñu dara du ñu gis dara parce que da ngaa naan ay sungo fi ki reen ba kenn du gis dara léegi nag tey suñ la yebalee ci ku baax koo xam ne kat soo demee doo fa fekk kenn wala da lay bindal wala nga dem ci euh, pas frigate mu tiim sa bopp bi ñaanal la ay affaire ñaar da nga ma ngay dem te néegam fekk fa mu xaw mm-hmm. fii bopp nag fii bopp giléem mm-hmm. fii ay béjjén mm-hmm. takk ko ba dëgër ñàng kooku lañ gën a gëm que oustaz bien sûr loolu y a problème mais xam nga xam nga euh, doy ñaan yàlla bu wér mag ñi dañ ko daan def dëgg la mag ñu jëkk ñi xamuñu hôpital xamuñu dispensaire xamuñu pikiir xamuñu comprimé li ñu xamaan rek mooy taalal seen loxo yàlla. parce que fu ñu jaaxlee taalal seen loxo yàlla. dëgg mais dafa am beneen affaire bu ko gën a compliqué loolu. Euh, ndooy baatin. soo waxee baatin maanaam pour ki nga xam ne. xamul baatin mooy xam-xamu biir. da gis nit yàlla boo xam ne bii dina dund ba xëy génn àdduna te du feebar. Mhm. du xiif mhm. du mar mhm. du lekk yàpp mhm. du lekk jën du li ñuy dund yëpp du ko le du ko dunde du nelaw du gëmmentu te mingi dundu dund dëndam loolu du médecine moo koy joxe ñaan yàlla moo koy joxe mais am na ñoo xam ni ah. doguma la ci dund gu dund gu sedd bu bu bu bu sedd. Mhm. dund gu bu sell mhm. maanaam. waaw li ngay wax nii. la mhm. sénégalais gëmul loolu. da ngay dem fii dëkk bi Eva am na ay kilifa yu fi ne yoo xam soo demee wax leen sa problème ak problème bi lu mu ngan ngan. waaw dañ laan la waaw rek. tàllalal nga ne la tàllalal mm-hmm. say loxo nga tàllal say loxo ñu ñaanal la nga tëfli dem te lu ñu ah, a ba ma demee ci sëriñ bi dañu ma rek koy xeeb da nga koy lay gëm nag bindal parce que am na benn xes bu ma doon nettali benn sëriñ bu bindoon bisimilahi rahmaani rahim mm-hmm. jox ko nit mm-hmm. ni ko dama def ci nangam ma dem ba ma demee sëriñ bi lii la ma bindal waaw bu la kooku bindal la bisimilahi rahmaani rahim nii la demal def ko nii ak ndoy baan mu la bindal bisimilahi rahmaani rahim du benn <laughs> xam nga comprendre mm-hmm. du benn ki nga xam dana la tàllalal mu ñaanal la mm. nga tàllal mu ñaanal la am ci ay kilifa yoo xam ne suñu la ñaanalee ñaan googu ngay tàllal ko nga ko xeeb loolu loolu bal la man ngaa sangoo 148 biteel yoo xam ne du mën a dab ñaan googu ñu la ñaanal mais sénégalais bi day xeeb loolu da koy xeeb il faut muy xëy di sangu di gont di sangu di ah. takku di dëgër di gas di suul di toji nen ah. loolu lañ gëm moo tax am xaalis kaay nag ma wax la ndooy gis nga li nga wax nii. Hmm. waruñu ko xeeb. dañ koo xeeb de. xam nga lu tax man la waruñu ko xeeb. nitu yàlla bu la ñaanalee fii nga toog léegi léegi léegi léegi mu taalal sa loxo nga taalal mu lu jox la. ngara yo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. doo jë euh, euh, dalalal dalalal kooku. na ngeen def. Euh, waaw na ngeen def. waaleykum salaam. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw man kay dafa am lu ma dégg léegi lu lu lu lu sëñ bi maa ngi leen ziar ñu toog ci plateau bi yëpp. Mhm. ñu ngi lay delloo ziar. yaa yal na yàlla yal na yàlla yal na yàlla jàppale leen. amiin amiin waaye. ah kontaan nañ loo ci émission bi moom. Mhm. am na solo lool bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf maa ngi ziar oustaz boobu nag bu baax. Mhm. maa ngi ziar bu baax. ñu ngi lay ñu ngi lay bàyyi ak oustaz nga laaj ko mi ngi lay déglu. waaw d'accord waaw. oustaz bisimilah. ñu bàyyi la ak moom waaw oustaz yaa oustaz. waaw. maa ngi lay ziar bu baax a baax. yal na yàlla nangu ziar alhamdulilah. yàlla bàyyi la fi yokk sax xam te dëgg. amiin amiin yaa ilaah. damaa dégg nga wax léegi lu am solo lool. Mm-hmm. muy ci ñaan bi wa samaa yi ak ci bi dama xamul nag bi jiitu moom laa jàpp ba samaa yi bi rek laa waaw wa sam si ngay jiital teg ci wa samaa bi. moo tax loolu ah. incha mm-hmm, waaw kay jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw yal na allah. jërëjëf oustaz euh, oustaz Pape Mbaye ca ca ah, xaw ma ndax France laa koy seet wala mm-hmm. France mm-hmm. mi ngi mi ngi lay laajte mi ngi lay nuyu dëgg la très bien ñu ngi koy fay bu baax xam nga xam nga ñaan yàlla uh-huh. gis nga électrique électricien bu yoree courant di ko doxal di ci liggéey courant bi yenn saa yi dina dugg ci yaram foo xam ne boo ko mu maas la mm-hmm. ñaan yàlla mi ngi noonu gis nga ki nga ki ki nga tàllal sa loxo mu ñaan ëffal la yow yëgoon ne ci biir ëf boobu envoyé na la benn sirru boo xam ne bii dugg na la ba yow ku la jege sax ajoom faju mhm. kon jarut a mhm. ñi koy xeeb nag mooy ñi nga xam ne xamuñu baatin ñaan yàlla ndooy mhm. euh, surtout ñi nga xam ne ñii dañuy farata dama koy wax toujours ñi farataal li jëfandikoo xam soon a xaaf xam suna xaaf mm-hmm. sërul la boo xam ne xam naa xaaji ndoy bàyyi xam nga ko. <laughs> waaw mu koy yitay gars yi takk <laughs> loxo bi. <laughs> waaw léegi. man xaw ma taaj praticien la xaw ma sëriñ la moo ma bàyyi leen yéen yéen duyoo. moom xam nga. non man damay gëstu man damay damay toog yenn saa yi. di ko déglu. waaw parce que yàgg ma leen marabu la. am na am am may tooñ ci sama soj bu ndaw bi mm-hmm. balaa ngaa jóge foofu na nga wax oustaz. Mm-hmm. gannaaw soj lu la yàpp la. Mm-hmm. na la ñaanal bu ñu ndaw ndaw yu jóge ci yow. wax naa la ko ci suba mi xam na la miyaa miyaa miyaa xam nañ wax naa la te loolu loolu oustaz xamu ko. ñi faj wax naa ko ko. Mm. voilà a fajoo looy wax ci amal nañu solo ñu ngi lay déglu ñu ngi nga <laughs> waaw. Eh, gis nga ñaan yàlla boo koy defal nit. dafay am solo. Mm. boroom xam. fil xaqiqati lan mooy ñaan yàlla. Mm-hmm. nit mën na la ñaanal ndoy sa doom. sa doomi doom sa sët sa sëtaati sët ba ci ñeen fukki sët ci say sët yi ku judd rek yàlla def ci moom barke mm-hmm. macha nitu yàlla dina toog fii ñaan fi fii ñu toog nii mm-hmm. li commencé fii ba kawlax ak li wër kawlax lépp lu ko jege rek yàlla baaxal ko mm-hmm. min loolu xam nga lu koy def waaw leer gi nekk ci ci nitu yàlla day tas day dem Mm-hmm. moo tax ñu naan souvent boo taseeg nit bul xeeb kenn. macha allah damay dégg ñu naan gémmiñ goo muus tam mooy yàlla. Mm-hmm. gémmiñ goo xam nga gémmiñu e- Eva gi mënu ma cee mooy yàlla. Mm-hmm. su la ñaanalee yàlla mun na koo nangu. gémmiñ goo muus tam mooy yàlla. voilà yooyu damay dégg nit ñi ko tey jii soo amee gémmiñ nit faatu. wala nit am problème. lu ma téeméeri nit toog di ko ñaanal. su yàlla mën na leen rus mhm. ba nangu loolee xam nga lool du ay butéel yu ñu lay jox wala ay fas yu ñu lay jox ba mhm. donc tey jii médecine traditionnelle bi ak médecine euh, moderne bi mhm. fii Sénégal la ñu nekk nekkuñu beneen dëkk wala Afrique la ñu nekk médecin bi day sangu di takk di di di di c'est un avant tout c'est un uh-huh. africain uh-huh. mais après yàlla mën na ko may am njàng nag mu xam leneen uh-huh. mën na dem tey jii ku ci ku ci médecin bu ci juddu mën na laa takkali téere mës sa yaay mës na laa sangat ba ngay defee examen mës na laa utali ay ñaan lool fi lañ ko fekk après nag yàlla dina def nga jàng médecine xam leneen mais li ñuy bëgg wax mooy li li nga xam moom la médecine traditionnelle moom nañ ko ko jox et puis nga jox ku ko xam li xam ne médecine moderne moo ko moom mooy comme hôpital ak ñoom seen ñu jox leen ko nga jox ko li nga xam ne ñoom ñoo ko moom li nga xam ne ko moom ñu jox ko ko. mais uh-huh. bañ a jaawale les deux choses. Sénégal nag soo demee sunu région yi man xam nga li may jàppale ci ay fa nit ñuy feebar. Uh-huh. tout le temps dama leen koy wax soo demee buntu rajo bi fekk leen soo demee buntu télé fekk yenn saa yi nga gis yenn maladie yoo xam da nga naan kii fu mu nekkoon. Uh-huh. kii lu ko teree dem hôpital. bu yàgg ndekete mi ngi ci àll bi ñu koy sunguf di ko reen di ko mm. defal ay fas a ba yi gën di yokk pendant des années nga gis ñu am ay tumeur yu ngande yoo xam ne lii ko ñu dem hôpital dañ lay takkal ak fas demal ca bàyyi diw mu takkal la caw fas di ca taf ay xob affaire bay gën di màgg mm-hmm. te booba nit ñi suñ ko yóbbuwoon hôpital ca te ba muy teel mm-hmm. médecins yi jéem ci pexe faj ko mu wér ci wér léegi nag loolu leen dul def très mhm. tardivement la ñuy doog dem op la ñuy doog a dem hôpital fekk seen yaay seen papa jaay na fas wa jaay teere bam amoon jaay gerteem jaay ñambeem jaay léppam def ko ci sa maladie bi jox ko ay bu xaaba bu xaaba yi di la takkal ay fas di la ca di ca dafa tax def ay xobi mim ak ay xobi mbante maare ba affaire ba infecté ñu gàddu la yóbbu la hôpital li ngay mujj ak yow mooy dem ci rajo yi télé ñu lay ñu lay ñaanal loolu la nit foofu la ñu war a. waaw c'est-à-dire li nga wax ni lu wér la mais c'est-à-dire xam nga ndoy moom li ma la doon wax nit dañ koy xaaj ñetti xaaj mhm. xaaj bi joxal médecin deuxième xaaj bi joxal tra tradupraticien waaw mhm. troisième xaaj bi nga jox ko sëriñ bi mhm. soo tolloo ci foo xam ne fii médecin moo ko war a gérer bàyyil médecin gérer ko très bien oustaz soo tolloo fi nga xam ne fii euh, tra travopraticien moo ko war a gérer bàyyi ko mu gérer soo tolloo ci lu sëriñ war a gérer nga bàyyi sëriñ bi gérer ko mais en toute sincérité dama lay wax benn mbir gis nga ñun dañu dañuy solo sunu bopp alquranul karim oor a ngi ci mm-hmm. jamaa ngi ci mm-hmm. alal a ngi ci gudd fan a ngi ci wér gu yaram a ngi ci soo bëggoon dund téeméer ak sax ci alxuraan alxuraan la ko jërëjëf mm-hmm. oustaz jamono bi ñu nekk dañu nekk euh, jamono yi covid 19 nga xam ne lépp a ngi ci sunu comportement Euh, ban lan nga ñuy lan nga ñuy yebbee loo xam ne mbokki téléspectateur bi toog di seetaan. Mhm. dañu ci delloo xelam xam ne feebar bi lu am la. Mhm. waaw. waaw c'est-à-dire man li ma leen di expliquer rek mooy euh, feebar bu ñëwee ci nit soo bëggee xeex ak moom dafa am loo jiital ba pare. Mhm. loolu il foog ñu wax ko téléspectateur yi ñuy déglu. ñu bàyyi ci xel. Mhm. nit quand boo bëggee sentir faiblesse su nit. Mhm. ci jëmmam ak ci xelam. Mhm. génneel croyance. si la croyance est dans le corps d'un être il devient faible. doo nekkatul nit. su fa croyance bi jógee. ngëm-ngëm la iman. boobu ngay am ci sa biir xol. renforcer ko renforcement boo xam ne bi feebar bu la dalee sax pour mu terrasser la. Mhm. du yomb. très xam nga lu tax. li ñàkk imaan xam nga fan la commencé ci nit. te mhm. nit du ko seetlu. da ngay ko wax ne ah man de dem naa ci sëriñ bi waaye man de ñaan naa ba san waaye nag gis nga yàlla yàlla boo koy ñaan ba pare nag boo nee waaye nag rek. Mhm. yàq nga ko. nag ki lay ñaanal foog nga gëm ko d'abord. pour ko ñaan gi mën a nangu. très bien. deuxièmement li ma leen ci yokkal mooy. lu waay di def ci àdduna. kullu shay'in yubda bi bismillahi rahmaani rahim ci delluwaat gis nga fatiha bombe atomique la fatiha waaw fatiha hmm. bombe atomique bu bu kéemaane mooy soo soo soo sooy lekk da ngay may bëgg a wax hmm. da ngay jàng bismillahi yaa kaafi bismillahi rahmaani rahim yaa shaafi. xanaa boobu da bukk ak bool bi ñoom Babacar. dégg nga la xaar de. <laughs> boo koy def soo dee naan. <laughs> Eh. jiital ko. xam nga tubaab bi dañ lay wax ne yenn saa avec leur comprimé avec leurs injections garab bi balaa ngaa lekk jiital ko. Mm-hmm. lekk naanal ba pare nga door a lekk garab bi. Mm-hmm. wala bokk lekkal garab bi rek nga door a naan. Mm-hmm. wala nga door a lekk mais. bismillahi rahmaani rahim moo ko gën a nekk injection ci nit. très bien kon euh, merci beaucoup oustaz euh, soxna Miya Ndour ak waa régie ñu ngi leen di nuyu bu baax a mm. baax euh, ñu bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw li ñuy tàggatoo rek mooy li nga wax léegi di ci. à suivre la de ndax ba tey yow yow yow la ñuy ñëw jàkkaar. waaw à suivre lay doon waaw li ñuy tàggatoo rek mooy ñi ngi ñaan mbas mi yàlla na ko fi yàlla jëlee. amiin amiin ñu sotti yàlla nañu ñu sotti yàlla nañu wér. Covid 19 yàlla jëlee. amiin yàlla delloo nit ñi seen sago. amiin amiin. musiba bu nar a ñëw ci réew mi yàlla nañu ko yàlla dàqal. amiin yaa yàlla defal ñu lu kawe suñu njort. yéen nag dañ leen di ñaanal yàlla parce que xam nga man sax damay farataal di wax yenn saa ma ne leen dafa am waxtaan yoo xam ne kii dana ko waxtaane yow nga di ko waxtaane nit ñi Ndoye Bane la ñuy gis mais c'est pas Ndoye Bane qui parle Ndoye dafay refléter ay fait jox ko askan wi ne leen ji leen ko yow boo ñëwee toog da ngay génne benn thème boo xam ne da ngay naan thème bi de suñ ko waxtaanee déglu ko ñëpp mën nañ ciy jëriñu c'est pas la personne en tant que personne bi wax mais c'est que njëriñ ñi mu lay jox ci ginnaaw loolu. mu nga war a jëriñoo. ñii dañuy yeete. liñ naan yéen da ngeen di yeete kii day yeete. télé bi ñuy won yëf yi mooy star. voilà kii day yeete. kii li mu bëgg tey jii ñii nelaw. yeew moom c'est ça son objectif. Mhm. parfois nag mu waxee ko noo xam ne nii peut-être ku nekk da koy gisee ne <laughs> xaw naa ki ak yooyu. xaw na tàng waaw waaw xaw na tàng xaw na. mais dafa war a tàng sax waaw mu ngoog waaye ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu xéwal. kontaan nañu ñaan la defal ñu te li fi wax nii léegi. Mhm. ñu di ko baamtuwaat. Mhm. lu waay di lekk di ko naan mhm. booy tëdd jiitaleel bismillahi rahmaani rahim yaa kaafi inchaallah bismillahi rahmaani rahim yaa shaafi ñu wax leen ne nag ñu ngi ànd ak ñoom léegi ci kanam léegi eh, rek bu ñu paree rek di ànd ak yéen ci tafsirul ahlam incha allah bu leen kitee ndoy baan ma bàyyi la nga tàggatoo jaajëf di ko di di di jaar fi ma nekkoon dana ma tooñ waaye ndokke yàlla ba mu fi new naa ni tey dinañ ma laajati numéro bi waaye numéro bala ma koy joxe di dix mille rek <laughs> c'est vrai <laughs> il faut ma ciy fayeku di sëriñ Modou Gueye itam daañu joxe numéro bu ma joxee ti dix mille rek parce que du do yombee noonu daal ca mm. ma bàyyi la tàggoo nga tàggoo waaw di tàggoo rek ba suba ak ba altine jàmm. Mm-hmm. incha allah ci may xelal nit ñi rek. Mm-hmm. ku ci feebar. Mm-hmm. demal hôpital suñ la seetee ba gis ne lii du fajum hôpital. nga dem seeti ku la faj tradipraticien wala sëriñ bu faj. mais bala ngay dem xoolal ku wóor ku crédible ku mën li muy def c'est pas parce que kër nit ki bari na nit lool. que ni xam na dara. du loolu. Mm-hmm. et puis toujours ma ko nañu moytu ñiy publicité. très bien sëriñ bu baax wala ñaankat bu baax wala tradipraticien bu baax du publicité. Mm-hmm. ñii publicité tey ji imaginer da ngay taxaw sëriñ boo xam ne nee na day day day ñaanal nit ñi ci bayre après di publicité yow amoo bayre bari di publicité. jërëjëf di publicité kay amoo bayre jërëjëf ah, Ndoye Bane moo tax euh, ñu ngi nuyu bu baax a baax docteurs yi ñu doon seetaan yor yor wàlli médecine euh, moderne. Eva Tra sax du ñàkk bu paree seet si leen ñi nga xam ne itam ñoo yor euh, médecine traditionnelle rawatina fédération bi ak suñu invité bi toog macha allah. Seydi Bappulo ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér bu leen quitté ndax di ngeen ñëw léegi jokkoo ak moom mën a téléphoné mu jël leen ci 88 628 vingt 22 88 628 04 cinq Evatra mi ngi remercier bu baax a baax Bamana Couture su ngeen demee di ngeen fa am de beaux vêtements rawatina itam de beaux bazin Bamana bu defaree bazin dafa doon lu jaadu macha allah dem leen ay modèles yu intemporels la Miandour merci pour coacher beeg euh, gérer bi. macha allah am na nag sunu benn doom boo xam ni euh, dafa réer nanu ñu ngi nuyu bu baax Pape Samba Thiam di nuyu itam sénégalais de l'extérieur yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan kii mi ngi tudd Xaadim Xaadim Yadd mi ngi réer di doom ci Aliou Yadd ak Ndey Yacine Ndiaye euh, réer euh, fële ca Mbaaw la jóge fas Mbaaw numéro téléphone bi yéen a ngi koy gis au bas de l'écran muy 77 054 77 054 03 82 77 054 03 82 amoon nañ fi sax beneen xale bu réer du ñàkk balaa altine incha allah ñu dikk ak moom di ñaan yàlla balaa booba itam yàlla feeñal ko jërëjëf waa régie merci aux téléspectateurs euh, ñu ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér di leen ñaanal soirée bu soirée jàmm ànd toujours ak euh, TFM macha allah jërë ngeen jëf à lundi